jëlee cas communautaire bi ba ngeen ba ko population Kër Massar bi yéegee ba tey nan lan la ñu jël pour euh, contrecarrer loolu. bon cas communautaire yi à vrai dire yëg nañ ko euh, c'est quelque chose qui fait peur au ventre vraiment mais malheureusement c'est quelque chose qui surprend pas vu que Kër Massar ni mu toll ci localité ak ni mu dansé ak voilà trafic bi fi am yëpp trafic en matière de de de voitures en matière de personnes voilà Euh, commerce yi fi am yëpp donc c' est quelque chose boo xam ne il était évident que ni Kër Massar benn cas boo xam ne maîtriser wuñu ko rek ça va ça va ça à des cas contacts bien à des cas moom c' était quelque chose de de prévisible donc on y est euh, j'imagine bien man personnellement et puis beaucoup de gens que je connais ils ont beaucoup plus accentué accentué euh, seen i prévention seen i seen i seen i seen euh, préventif donc. voilà donc di di di appeler tout le monde à ce ñu def de même gën a gën a gën farlu gën a gën cee bàyyi xel gën a prévenir voilà sinon bu dul loolu rek dina yegg à un niveau boo xam ne tey jii nii Kër Massar. seulement moom mooy il y a du préfet de boo xam ne euh, vu cinq cas yi nga xam ne moom la Kër Massar di am te mu am un grand nombre de cas communautaires. préfet bi dafa jël benn arrêté euh, lépp li nga xam ne mooy euh, mouvement économique ay commerce ay ay commerce ambulant commerce de tablier xam nga voilà ay commerce yi nga xam ne c'est non autorisé yooyu yëpp daf ko jël pour interdire ko ainsi que euh, stationnement anarchico garage yi fi nii fii ak Kër Massar mooy position de très amer ñu wax ak moom déggantewuñu donc on est parti on a vu le préfet ci boppam Euh, ak ak ak gendarmerie ils sont venus ñu ànd ak ñoom def une équipe on est venu ici on les a déguerpis euh, on les a déguerpis donc c'est ça donc c'est li tax ñu def ko c'est une question de responsabilité personnelle donc mënuloo di bëgg a résoudre une un problème nga bëgg a transiter euh, fee boobu noonu d'une localité à une autre c'est pas possible donc mënuñoo tere rassemblement bi fee ne au di ko indi quelque part boo xam ne déjà c'est une agglomération ñu fa dëkk ñoo que sax ñoom ñu ëpp ñu fay def activité donc loolu la jeunes yi gis en collaboration avec le mouvement Kër Massar Nouvelle Vision bi nga xam ne moom moo yor lépp li nga xam ni moom mooy question environnement wu euh, quartier bi question reboisement question citoyenneté yëpp voilà ñu ñu ñu def collaboration donc jëm ci loolu xeex ko c'est ce qui s'est passé. Euh, présentation tour bi. voilà man c'est Ben donc jeune de la localité. Euh, euh, président du de la commission environnementale de Kër Massar. Euh, gendarme yi dañ fay wàcc ak le préfet en question ñu commencé déguerpir gars yi depuis la station ba tous les tous les recoins de Kër Massar il s'est trouvé que ni gars yi nekk ci garage yi ñu nekkoon ñu nekkoon fii nii ci côté RDG bi dañoo déplacé transité seen garage bi. ñoo indi ko fii au niveau de cette de localité donc ce que les jeunes en collaboration avec euh, le mouvement Keur Massar Nouvelle Vision loolu la ñu gis euh, loolu la ñu gis euh, voilà ñu ñu ñu jóg ci quoi ñu jóg ci donc ils sont venus là di waxtaan ak le chef de garage. laaj euh, situation bi nu mu demee fii. Mhm. au niveau de Kër Massar ak euh, décret bi nga xam ne moom la préfet bi jël. waaw décret bi par rapport ak décret bi préfet génne xam nga préfet dafa wax ne rayon 500 mètres à partir du rond-point bu fa kenn taxaw. Mhm. léegi nag ñooñu ñu dàq leen ñu ñëw ci boulevard bi. mbedd bi gën a yaatu ci Kër Massar moo nekk ancien marché mercredi ba. Mhm. ñu ñëw installé fa garage clando yëpp. te ñun xam nañ li ñuy wax le ministre bi muy wax dafa ne. garage clando yëpp nañ leen tas mhm. kon nag garage yi waruñu fi woon nekk ba nëgëni si mhm. léegi nag bu leen dàqee ci station ba nañ dem wuti ji feneen fu ñu aw mais dañu jël la mal transféré ko en bu ñu jëlee ñooñu ñëw dugal leen ci biir cité bi dañuy tiit dinañ tiit ñaata cas communautaire cinq cas communautaire ak dix suspect ëpp na ko sax ëpp na ko waa nombre de suspect eggul xaw ma vingt six suspect cas la am vingt six ah ak ak ak ak ñaata cas ni communautaire la li dafa metti dafa metti ñun suñu cité la ñu dëkk bu ñu neexoon ñu tëj ko def barrière comme comme cité Aliou Sow def comme cité Gaddaay nous sommes une cité bien reconnue ay titre foncier la ñu bu ñu neexoon ñu tëj suñu cité mais duñu def loolu parce que ñi fiy jaar dañu bari mm-hmm. ñi fiy jaar dañu bari kon nag nañ dimbali ñu déplacé mouvement yi fi nekk ni ñu indil ñu suñu carrefour bi nañ ko fi jëlee duñ fi taxaw sinon ñun la ñuy bañ bi cité bi a gaawee ndax ñun jóg nañu taxaw dañu retenir suñuy doom ñu ngi dem di négocier pour que ñu déplacé wu mais apparemment mel na ni situation baa ngi décanté mi ngi mel ni ñu ngi dox parce que ñun xam nañ suñuy droit waaw mi ngi mel ni ñu ngi dem léegi nag ñoo ngi xaar suite léegi nan nga gisee ak cas yi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñu amaat tey population Kër Massar bi ñu ko jëlee waaw population Kër Massar ñu parce que zone transit la carrefour la Kër Massar ñii dem Tivaouane Peulh ñii dem ñàkk ñii dem Bayax sax dañuy jaar fii léegi nag bu fekkente ne cas communautaire voilà donc situation bi décanté na préfet wàcc na ànd ak gendarme yi donc ñu jël fi circulation baa donc actuellement ñi ngi euh, militaires yi xawma gendarme yi ñoo nekk di déplacé gars yi clando yaa ngoog je sais pas s'ils sont en train de se déplacer ou pas en tout cas voilà ñoom la ñu ëttal ne garage dañ ko fi def fi def duñ ko nangu duñ ko